salaatu lati fi kulli lépp bëgg màggal gi rek moo ko waral waaye wax dëgg yàlla yéen bi ñu ngi am kontaan bu baax te xam moom di gis lu gars yi bëggee sëñ Tuubaa di ak yoon yi métti na na waaye nag moom sant yàlla mu baax man maa ngi jógee ba Resma Kaffrine waaw Kaffrine laa jógee ko Resma Kaffrine ba ay 10 heures 11 heures ba ba léegi mën a guñu egg dali waaw waaw mais lépp na xataay yoon rek waaye lépp na sant rek lépp sëñ rek moo ko jar jafe-jafe bi daal ci yoon bi la ne ndox mi moom nit mën na koo moytu waaye yoon bi moom métti na trop ndax man maa ngi jógee Koungheul. Koungheul waaw laa fa départ ba léegi maa ngi fi mënuma fexe ba yegg. ndax métti. Ah, consommation na métti na métti na métti na moom daal lépp métti lépp métti carburant bi seer na yoon yi doo dem dëgg dëgg métti na moom métti na xam nga deux heures ba léegi nga ne ci diggante bi mënu laa dem métti na. deux heures fii la fekk bin Mbacke. xoolal ba léegi mënumaa dem xam nga loolu métti na. waaw jaajëf ñu ngi leen di jaajëfalee ni bu baax a baax. yoon bi non non métti na affaire circulation la mais sant yàlla Serigne Touba moo ñu ko jaral waaw lépp ci liggéeyu Serigne Touba rek moom moo ñu ko jaral. Ahmadou rek. jàpp ngeen daal màggal gi moom. Oh, oh, gi la ñuy dund yow. waa ki Serigne Sall dañuy wax rek di ree dañuy reetaan rek waa ki yàlla. Ahmadou rek. ñu ngi sant bu wér a wér a wér. waaw ñu ngi lay ndokkale bokk ci màggal gi. macha allah màggal gi ku nekk mën na koo ndokkale moromam. dëgg la sant bu baax a baax. ndax euh, gise bi mm. euh, suñu borom moo xam ne tax mu def ko. ndax waaye nag yoon wi mitti na. gis nga embouteillage bi ni mu demee. waaye nag euh, ki ñu koy defal ñemewul boor dafa am pay ku ko defal loo mënul mu defal lu la jomm ku ko lebal ker mu fay lu guddi waaw leble ba leble jeex nag leble sa bopp ci gën a métti boo ko defee dañ lay teg ku ñàkk fayda waaye boo lebelee sa bopp as gor ah. bis dina ñëw mu ànd ak ay bokkam fekk la sa biir bopp delloo sa bopp. dëgg la waay sa waay yoon bi xat na. waaw gars yi rek ndax màggal waaw mais ku baax sëriñ bi yoonam a gënoon a xat. yoon a ma gënoon a xat yoon a ma gënoon a mbitti waaye nag yoon wii eh, ku mu nat a liggéeyloo ku mu nat a fay du la liggéeyloo maanaam pay gu ci nekk ku ko xamoon eh, lu yoon wi mitti mitti mitti mitti mitti mitti mitti mitti doo ko sax jàmbat macha allah eh, saa waa ji kontaan nan bu baax a baax a baax a baax macha allah gis nañu liggéey bi yow it ñu lay sant bu baax a baax di la gërëm parce que nit nga koo xamante ni ñoo bokkandoo dëkk Thiès ñu am lu ñu séq Eh, doon ci góor gi ba doon ci ngóor gi ba jur si ngóor si ba ci waaj a doon góor gi macha allah yàlla na yàlla wéral eh, liggéey bii ñu la jox nag maanaam yàlla nga ci am ndam. ci barke Cheikhul Khadim taalibe sëñ Babacar. ah mu loolu loolu. bu mag bi barke démb la ma laa fekk sabaru Touba Maquette. Ah, nga ne li ma Serigne Touba defal. tey nga ñëw ci dëkk Serigne Touba. daal di confirmé. waaw xam nga àddina moom yëg la rek. Mhm. ndax ku ko yëgul doo ko def néew bi ak liir bi leen doo nga seen différence ci àddina mooy yëpp liir bi soo ko domp tey bu ne wee wala mu wala mu wallaxu néew bi boo ko domp tey bu a tekk ak yëg la dañoo yëg Serigne Touba moo tax mu jarañu tàngaay suba ba léegi ñu koy jaayante jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba maanaam Serigne Touba dëgg la tey coono bii nag mooy tawfeex gi ndax sëriñ bi sëriñ bi sëriñ bi moo ñu teel coono ji ba pare ñu teel soos yi loolu la demee dëgg la dëgg la Thioune ah dañuy nax ndax sama kër lay dal waaye Serigne Touba seede na ni kum niwul taalibe seex laa doo ko sax gëm maanaam mooy nangu lépp mbay du nelaw hmm. waaye nag di nga xam ne bàmba woon ak seex ah! di nga xam ne lépp dëgg la jërëjëf sëriñ Touba ko Kaarang ah, waaw maa yorotal waaw am waaw ba léegi àggagum ah, ndox bi rek waaw ndox tax gars yi kenn teggiwul waaw loolu daal laa jam yaakaar waaw yëpp dañuy joué yëpp dañuy joué waaye nag sant yàlla comme moom bisu sëñ Tuubaa la moom lu ci waaye def doyut waaye nag nan ñu ci jàppale bu ñu jàppalee dina gën a baax ci taalibe yi incha allahu rabbi maa ngi bàyyi ko Mbirkilaan ay 7 heures du matin laa fa jógee. oui. Euh, naka yoon bi. yoon bi dafa xat. waaye tey moo ren moom macha allah affaire bi mel ni ne yomb na quoi. parce que accident yi yàlla musal la wàññeeku na bu baax waaw. parce que ñu ngi xool affaire bi appuyage oh, bi ne dimbale nañu gars yi lu trop waaw c'est bon affaire bi mu ngi normal waa waaw fii nag biir Touba moo gën a métti àll bi métti waaye biir Touba moo gën a métti moo métti parce que depuis quatre heures ñu ngi fi mënuñ dugg mënuñ wàccee suñ clients yi ñëpp ñu ngi sonn ñu ngi xiif ba léegi ñu ngi si oto yi ba mënuñ wàcc. carburant bu seer ah, carburant bu seer voilà. yaa jigéen yëpp xoolal ñu ngi sonn. añuñ naañu ndox. ñu ngi sonn daal waaw. incha allah magal ak jàmm jërëjëf. xam nga Serigne Touba Cheikh moo ko jar parce que Serigne Touba maam Cheikh Ibrahima Fall li ñu liggéey kenn mënu ko liggéey te ñun li Serigne Touba daj ak Cheikh Ibra ñun dañuy rek waaye xam naa ne coono ga ñu am ñun attanoonu ko waaye nag dëkk bi ni yor na ay millions te ñëwu fii. kon ku fi ñëw du sa njàmbaate du sa alal ndimbalu subhaana wa taala la ak borom Touba wala fi ak sunu maam si Ibrahima Fall Lamp Fall Baabul Muridiina ñu ngi sant si Muntaxa Mbàkke Basiru di ñaan yàlla mu yàgg fi lool te wér ak xalifa yëpp bàyyiwunu fenn daal ku leen juum yéen ñu ngi leen di sant di leen wax jaay ngeen jëf. mi ngi noonu. woon Gambia ñu ngi fa jóge woon dix heures su guddi ba léegi nii mënaguñu egg sunu dal boo xoolee fi mu toll nii waxtu tisbaar mi ngi ni fekk circulation bi waxtu tàkkusaan mi ngi ni fekk circulation bi heure ndekki defuñu ko mu ngi fekk circulation bi heure añ mi ngi ni fekk circulation bi waaye yàlla na ko Serigne Touba defal ay xéewal si doole maam si Ibrahima Fall si barki Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam parce que boo xoolee bi ñu jógee Banjul parce que boo jub rek ambatoni yi dana dem neen nga xamee ne kenn du kenn kuru Serigne Touba maam Ibrahima Fall ñoo liggéey démb te Serigne Touba waxoon na ne bare na loo xam ne ñu ngi koy toppatoo euh, bare na loo xam ne dañ koy toppatoo si jamono du mën a sotti te yàgg yàgg sama dëkk bi lay sottee tey bàyyi Serigne Saliou Mbacke yaa ngeen jëf yéen. embouteillage bi kay na trop trop parce que ndox mi nit ñi dañ naa dugg a dévier tey nag ñemul wàcc tali bi parce que man maa ngi nii jëm Daaru Minam ay damay que sinon du ma dem corniche bi nga mën a jël sinon da ngay am problème oto yi dafa bari ndox métti na lool vraiment mais nag sëñ Touba jar na ko bu ñu gisee lim daj maayam waa Gabon moom lii du dara lii du dara sëñ bi jaar na ko. na nekk maa guñ nangu rek. a ci barke sëñ Tuubaa. ziar dee nañ dee nañ fatt nañ. billahi maa du matin ba tey yegguma fu ma jëm. tronçon bi. añu ñu nekk ñu reeru ñu def ñu dara. alkaati mel ni amul alkaati Sénégal nag man nga seen njëriñ moom laay laaj. parce circulation bu mel nii c'est da garaaw na xam nga. ah di yoon te teguñu ko ci te boo waxee comme kenn sañatul wax ñu noppi rek di si mais franchement lii kenn xamoon lan la kenn xamoon lan la 6 heures du matin ba ban heure a jot 18 heures quelque xam nga fan laa jëm maa ngi bëgg a dem ba Ranérou dellu siwaat ban heure laa yëg Ranérou ban heure laa yëg Ranérou c'est le Sénégal quoi c'est le Sénégal te boo waxee ñu ah waaw mais non man sax seerul garaawul mais nag euh, coono bi rek moo metti parce que tubaab bu ñuul laa. màggal ak jàmm ku baax ki noonu lay delloo ziar bu baax a baax. ñu wax fan nga man maa ngi jógee ko Gambie Farafeñe. Farafeñe Touba waaw. waaw ñu ñëw. ndoom ngeen jàngatee yoon bi waaw sant rek. ndax euh, fii moom euh, ñëpp bëgg lu baax ndax boroom dëkk bi di Cheikhouna Ahmadou Bamba Khadim Rasoul amut ko woon ci lim am tey amut ko ci sedd sedd kon ndox mi lépp rek. xewal la rek xewal la metti na nag embouteillage bi métti na pour oto yi dem parce que deux heures laa fi dugg ba léegi mënu maa fexe ba dem ci dal bi waaye nag lépp nag dañu si sant yàlla suñu borom rek waaw ndax it na wax dëgg yàlla ah euh, sant rek ndax ñëpp bëgg màggal si ñëpp bëgg màggal si loolu moo tax yëf fi demee nii comme que nag Serigne Touba Xaadimu Rasuul amul koon ci ah wax dëgg yàlla ci sedd sedd ñu ne tam faw ñu jaayante coono beeg yëpp toggoog coono bi ba mën a màggal si rek incha allah sëñ béppal la waaw day niru coono waaye lépp taw feex la rek waaw di ziare waa Gambie yëpp nag ñuy jóge ko fa Farafeñi baax na jërëjëf macha allah